Ismaïla Madior Fall am initiative ne day def assemblée générale pour lancer le parrainage ñu ñaan ko ne ko assemblée générale bi na doon assemblée générale bu boo ko Yaakaar mu nangul ñu loolu ñu ànd ñun ñëpp ci gannaawam ñëw taxaw fii pour joxe message yu Benno ko Yaakaar message bu président de la république son excellence Macky Sall mention spéciale aux femmes et à la jeunesse bi nga répondre massivement à l'appel de leur leader c'est l'occasion de remercier tous les partis qui n'ont ménagé aucun effort pour cette mobilisation exceptionnelle mais et messieurs le maire des maires qui nga suis le maire Benno mooy maire mouvance présidentielle am amul suis Mar Benno Yakar, bu président Macky Sall de 2012 à 2024 hormis les dernières législatives les bu am élection fii ñoo ko nyoka suis gagné gagné 2012 avons gagné 2017 avons gagné 2019 mais nous suñu sommes suñu bopp nous sommes ñoo nous ba ñàkk Nous yi Nous am ay répercussions ci législative yi dañ nan nit nak so xamul le jëm nga fa nga fa ñu ñu waxtaan suñu biir faut biir di ñaan di militant militante ngeen def ñu ñun ñu bokk ben say Andando li nga def campagne Andando. def campagne électorale Andando. le soir du 25 février. président Macky Sall dafa lu lenn rek ngeen soxla lenn lenn muy l'unité l'unité and nek ben, nek ben bloc politique ben benn say so len ko defee ken mënu len gagner te ngeen élection locale yi génn ñi bok ci Benno bok Yaakaar ñu ngi am 83 pour cent ñi bokk ci benn Benno Bokk Yaakaar 83 pour cent la ñu am ñi yore mairie bi 17 pour cent la ñu am ñi yore mairie bi 17 pour cent la ñu am loolu li muy firnde mooy quand nous sommes unis nous sommes forts loolu moo tax président Macky Sall ne yéen waa Tëngéej lenn rek laa leen sas mooy ngeen ànd nekk benn. ànd nekk suñu daje tey bii nag su amee suñu daje tey bii su amee ginnaaw yàlla ak responsable politique yi nga xamante ne yëpp ils ont répondu à notre appel Souleymane Ndoye mii toog honorable député moom lañ ko a moom lañ ko war naturel ñëpp lay waxal ñëpp lay waxal ñëpp la pour woo organiser soo ko ko organisation bi day bax motax vous avez le meilleur profil pour être coordonnateur de Benno Bokk yakar de la ville de Rufisque Souleymane lolou denk nañ la ndax on connaît ton sens de l'organisation on connaît ton sens du management des organisations on connaît ta générosité on connaît ton sens de l'écoute on connaît ton sens du contact lors au on compte sur toi pour coordonner nos activités au niveau de la ville. C'est l'occasion pour saluer les trois coordinations du Parti socialiste qui ont réaffirmé, qui ont confirmé leur ancrage dans la majorité présidentielle et qui soutiennent la candidature de Amadouba. Je remercier et féliciter nos amis socialistes. Souleymane Ndoye tax ma def ko defe naa ma xam ñëpp xam nañ ne mat mii gëj naa taxaw di jël micro dañu may jox kàddu gi ma ne man de tey jii xame woon noon ma wax mais tey xaw lu may wax parce que bul Souleymane jiitoo ma am na lu des dinaa ko wax mais monsieur le ministre kañaan Ismaïla Madior mu jël parole bi wax ma ne affaire bi jeex na joxe nag li nga xam ne mooy suñu position nekkul position Alioune Mar kese mu nekk suñu position mouvement bi yëpp ñun waa ANCP dama ne monsieur le ministre ñu ngi lay sant bu baax nag li nga def ci man xeebuñu ko Souleymane Ndoye di suñu rak mu ne ma grand monsieur le maire léegi yaa fi maire benno fu ñu toog da nga toog fa ma ne ko Souleymane de wax dëgg yàlla jox na ma cër boo xam ne cër boo xam ne fekk Ismaïla wax na ma ko mais cër bi ma jox moo tax ma ne dinaa jël sama responsabilité. yéen a ko tere leer kon foo leen teg seen tànk incha allah ANCP dina fa teg seen tànk mais li nga wax nag li nga wax nag dégg ko dañuy jàpp ne fukki yambar kenn ku farlu moo ko mën. kon moo tax ñu bëgg ci yéen ngeen farlu gañe neex na lool mais farlu rek moo koy jaxe ku kenn wax ne ànd na ak le ministre Ismaïla Madior ànd na ak Souleymane Ndoye dañuy gañe déedéet mais yéen boo leen ñu far boo leen ak ñun ngeen farlu ngeen mobiliser bu soobee yàlla ñun dina ñu gañe nañu fexe ba ñun ñu bañ ñu jam suñu honneur ñu jël li ñu man yépp ñu def ko ci pour jox la victoire au candidat Amadou Ba